Boy Niang euh, ginnaaw décision bi nga xam ni moom la la CNG joxe est-ce que amoo ci regret. non amoo ci benn regret ay xale la ñu lamb dafa loo xam ne moom nga war a def mooy def fula fayda ak jom indi indi mbooloo macha allah bëre xeex fet bëgg amateur yi li ki dal na suñu suñu loxo suñu borom la ne def naa li ma war a def nee nañ dem naa sama kër. def nañu recours deux semaines après jox fi am benn problème. ay xale defaat recours wala defoo recours. non non def ma dara ay xale lañ maa ngi continuer sama yoon incha allah incha allah. tey ku ne xam na ni euh, tey Modou bu ci génnoon tey ko par exemple wala bu ci génnul euh, yoonu làmb boole na leen moo xam mu yow wala muy Ama Baldé. waaw la làmb la rek. Modou Ama Boy Niang keneen ak keneen ñëpp on est des frères Parcelles Pikine ñoo bokk baay. nañ ko def ci fair play mais ñu ngi ñaan ñun a Pikine suñu bopp may ñu ndam seet wet ñu yóbbaale ko incha allah sama avant sama avenir mi ngi sama kanam ku ma war a bëre rek naa bëre rek moo amul. kon daal Diabathioly baa ngi fa mu taxawoon ne ca lam nekkoon. waaw parce que groupe lamb génération 2009 mooy ñun xale yi man Ama man Ama Guy gi Pamoro Garga Mbossé ñooñu Sa Thiès bëri naa ak yoon daan ñu ma ci war a daan léegi mag samay mag a bu mu neex il faut suñu mag ñi may ñu saa ñu bëre lamb neex amul benn